a ngeen jëf l'observateur xëy na tàntal na bi boole kook di gàmmulu rëy mi ngi ñuy fàttali ci xëtamu njëkk moom yéene kaay bi ne ci guddik tey gi ci la julli di di màggal mawlut sa di fàttaliku gane si àdduna gën gi mi def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy baaxe moom l'observateur it ay xibaar ci séminaire bi mu xaddami Seydi Aj Malik Si doon amal ca njaarnde lii quotidien xëy moom ci gàmmu gi li mu bind mooy Sénégal a baax gàmmu gi njëkk ba di ñu fàttali moom it ne gàmmuk Tiwaawoon gu gi mooy téeméeril yoon ak ñaar fukk ak ñaar 122e édition bi muy ci dëkkub Seydi Hadj Malick Sy bi Tiwaawoon di ca Medina Baye Touba Thiénaba ak Ndiassane journal bi ne nañu foo ci dem ñu dund gàmmu gi nitu yàlla gi dëkkee dundal gàmmu gi di Seydi Hadj Malick ab nataalam mi ci xët mu njëkk journal Bës Bi Le Jour le stratège bokk na ci tur yi ko yéenekaay bi xëy di bàkke Soleil national di bàkk maamu Seydi Aj Malick si bu ñu ràññee woon lool ci xam-xam moom la journal point actu xëy di waxtaane laatir bi nañu muy ca Kaolack di ca Tiwaawoon di fii ci Ndakaaru ca Yoff ak ca Masalikul Jinaan ñépp àndandoo di nabi bu ñii dee gàmmu ci dëkki diine yi ci réew mi Les Échos nee nañu état major politique yi ci réew mi ñoom ñoo ngi gane ji kilifa diine yi waaye yeewi askan wi seenub délégation journal Les Échos nee nañu ma nga woon démb ca Tiwaawoon joobee nañu fa seen waaj di a réew mi l'observateur nañu sàkku na feet ay ñaan ngir élection yi ñu jëm ci réew mi am ci jàmm akuk dal waaye yeewi askan yu ñu dalaloon démb ca Tiwaawan l'observateur nee nañu nañu joojee njiit réew mi Macky ma nga woon ca Medina Baye wax na fa wax ju rafet jëmale ko ci Cheikh Mahi Ibrahima Niass xalifa bu Medina Baye ba rafetlu taxawaayam ci réew mi Walf Quotidien nañu président Macky ca Kaolack tàggu na xalifa bi dénk ko ak njabootam ba jëlaale APR ak Benno Bokk ko Cheikh Mouhamadou Mahi la Sénégal gis ne moom ci gàmmu gi demoon seeti kilifa diine yi ci réew mi doon leen siyaar ak di leen tàggu daanaka kër gu mu ci dugg am nañu ay regret ci jóge gi mu nar a jóge ci bopp réew mi ñu jóge ca dem seeti journal Tribune mi xëy di ñu xamal ne Benno gi Macky bëgg ci waa këram yi ci candidature bu Amadou Ba mbir yi njaw mi ngi ci desandi yoo xam ne ndax ñi bëgg a demal seen bopp ci élection présidentielle yi fas ñu ci yéene dellu gannaaw taxaw nañu temm ci ñàkkante ko ak Amadou Ba muy Aly Ngouille Ndiaye ak ñoom ci ponk yu yu bari muy ci lu jëm ci institution yi ci réew mi ak ni ñuy doxe société civile bi ci réew mi ak jeunesse bi ci réew mi yi ak yeneen lu ca nekk jaawakol daa waxtaane na ko ak yéenekaay bi yéenekaay beneen mu di Source A xëy na dañu joxe xibaar ci Ousmane Sonko nee nañu ak delluwaatam ca kasu bu sébi xotaan ne gis nañu ne tey jii ci la war a wél përég te it jàpp nañu ne santem war na koo mën a may mu supporté dundin wi ci kaso bi delloo gi ñu ko war a delloowaat ca kaso bu sébi xotaan Source A nee nañu fi mu ñëwee baaxul joo xam ne waa këram yi ñoo ngi wut ñaari millions yi signature ak genn wàll ngir parrainer candidat mi Barça wala Barsaq gaa yi tekkee gu ñu seen i jaaj ndax libération xëy na di ñu wax ci xëtamu njëkk ay nit ñu jàpp ci Kafountine fanweeri nit ak ñett lañu yu waajoon ba jekk bëggoon a takk jóg takk deri jugal leen ba teg leen loxo capitaine gaal gi moom libération nee nañu ba mu gisee alkaati dafa daw suubu ci géej gi. fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi gàmmu gi niki tey jii ci guddi la Tiwaawu nag Medina Baye fees dell ak i euh, taalibe ci jamono ji Medina Baye nag démb euh, la woon seen cérémonie officielle ci teewaayu ministre de l' di Antoine Félix euh, Diome liggéeykat yu euh, porop Ndakaaru tey la ñu fas yéene daje jekk premier ministre Amadou Ba seen i jafe-jafe yi tax ñu bloqué liggéey ba la ñuy waxtaani jee waaye nag ne ñu bu ca saafara amul daal du ñu dellu ganaaw ci seen ñaxtu yooyu le ca ndar moom pënd ma wureegul ca avenue général de Gaulle gi ñu ne dañ ko bëgg a tuddee kii di Macky Sall dogal gi nag tax ba conseil municipal ba xàjjaloo ci jamono ji seen cérémonie officielle ci teewaayu ministre de l'intérieur Antoine Félix euh, Diome sàkku na ci ndaw ñi ñu gën a wekk mag ñi waaye it wormal kilifa diine yi sàkku na it euh, ci xalif bi ay ñaan ngir jàmmi réew mi liggéeykat euh, yu poorab Ndakaaru tey la ñu fas yéene dajeek premier ministre Amadou Ba seen i yi tax ñu bloqué liggéey ba fa euh, la ñuy bëgg a waxtaanee waaye nag ne ñu bu ci saafara amul daal fas yéene wu ñu deltu gannaaw ci seen euh, ñaxtu yooyu le ca ndar euh, pënd ma wuréegul ca avenue général de gi ñu ne dañ ko bëgg a tuddee kii di Macky Sall dogal gi Euh, waral coow ci conseil municipal ba euh, ñii dañ cee ànd am ñu ci àndul tàggat yaram ak Youssouf Bodian lay doon xibaaru euh, culture yi mu di xibaari aada yi ci rythme gàmmu gi dañ ci ànd ak Sode Thiam yenn kaay tey daanaka ñëpp ci gàmmu gi la ñu xëy li ko dalee Tiwaawoon ba Medina Baye Mouhamadou Mamadou Mouhamed Ndiaye la ñu ci àndal. Amady Ndiaye moo fare ci machine bi ñu dem léegi ca Tiwaawoon fekkim fa euh, kenn si suñuy ndaw di Cheikh Anta Diop nu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax euh, Barthélemy Ngom. ba gàmmu gi tey ci guddi la waaye jàpp nañ ne daal Tiwaawoon fees na dell ak i taalibe. Tiwaawoon fees na euh, daanaka démb la commencé ndaxte booy xool démb bu ci guddi gi booy dem jumaa ji sax daanaka xat-xat loo da ngay buuxante pour accéder ci mausolée yi nga xamante ne ci fu ñuy wax esplanade des mosquées. Hmm. mausolée bi nga xamante ne fa la Serigne euh, Abdou Aziz Sy Al Amin tëdd ak fi nga xamante ne euh, Serigne Mansour fa mu tëdd daanaka rang bi booy génnee ci euh, bunt ba di nga rang presque lu tollook ay ay cinq cent mètres yoo xamante ne mille mètres yoo xamante ne daanaka ja dugg bi jafe-jafe la lool tey ji gis nañ ne esplanade bi dafa fees del del te ci guddi gi tey ji ci suba ji gis nañ ni nit ñaa ngi gën a ñëw mu nekk ga gàmm goo xamante ne ren xam naa ne liñ fi xaar ci ay doomu aadama dina bari lool contexte bi vraiment gis nañ ne Tiwaawan ren ji euh, maanaam dañ ko ti tijaan ñu ci bëri dañ koo jëlee ak euh, xool ak dënn ngir mhm. ñëw seet si euh, jumaa ju bees ji nga xamante ñu ci bëri ah, ay curieux yu bëri boo dajek ñoom dañ naan dañuy dem xool ji jumaa ji na mu mel ndaxte ni ñu ko yàggee wax ci rajo bi waaye nag jumaa ji kenn du fa dugg ndaxte dañ ko wërngal ay takk der yu bëree bëri ñoo fa nekk ba tax daal li ci mën a jàpp daal ren ji même esplanade des mosquées bi mhm. dañoo génn plateau télévision yi xam dañoo nekkoon ci biir doon xatal yëpp comité d' organisation bu COSCAS di xalifa ñang euh, moom nee na loolu décision bu ñu jël la ba tax na télé yu bëri dañ leen plateau yi dañ leen génne yóbbu leen beneen barab waaye daal euh, batterie mi jamono yi nit ñaa ngi gën di ñëw ci euh, gàmm gi circulation plan de circulation bu baax la ñu def nag ndaxte tey ji pour nga ci yenn bëri bi comme ni ko sareet yi daan xaatale ak jakartaa yi daanaka dañu leen a génne bu boo amulee autorisation doo mën a accéder ci yenn bëri bi hmm. mën nañoo jàpp daal ren ji daal xam naa ne li ñuy xaar ci doomu aadama fii ci lool contexte bi malgré que euh, démb tàngoon na trop euh, maanaam pour dugg rek ci jumaa ji euh, xal bi jógee maanaam fi nga xamante ne fooy résidence bi groupe Futurs nekk ci boori stade bi ñuy kër maire taxa Mariam taxa foofu mooy suñu dal waaye nag pour nga dox rek dem ba ci jumaa ji jafe-jafe la kon nag Barthélémy xam naa ne daal fekk ngoon fekk yor-yor. Mhm. ndaxte ci yor-yor bi daal dañuy gën a gis nit ñi dem ci barab yeeg yooyu même ba ci sëñ Moustapha Sy mi nga xamante ne moom it mi ngi marche bi foofu lay gàmmu waaye nag taalibe yi ni booy dugg Tiwaawoon foofu lay euh, nekk Barthélémy. Mhm, jërëjëf jërëjëf Cheikh Anta Tiwaawoon fees ba tey ñu ngi ci yoon wiy dem fas yéene euh, gàmmu ji ndaxte gàmmu gi ni ki tey ji ci ngoon la Tiwaawoon googa fa la ñuy des ndax xam ngeen ne am na délégation coalition Yewwi Askan Wi ba fa demoon ni ki euh, démb dem daje xalif général de Tidiane waxtaan ak moom waaye nag ñoom waa kuje gi li ñu ñaawlu mooy teg gi ñu teg loxo kii di Ousmane Sonko bokk ci ñoom ñi fare ci kujje gi ak it li ñu jàppe ni injustice yi ñu nekk di ko euh, di teg ci kawam Habib si moo yore woon kàddu gi euh, ñu teewlu ko ak du Diagne ëpp na ñu ñëw ci kanamam toog te àggale wuñ ko la ca jiitu mooy nekkee wi nga xam ne suñu doomu ndey Ousmane ko nekkee na ko te bés bi bañu àndee ba léegi mu ngi koy soog a rate te li ko ko teg du dara lu may bëgg réew Sénégal moom boppam li nga xam ne moom moo fi nekk ba léegi ñuy wéeru ci bitim réew te war a mën a téye li ñu moom mu di ko ŋàññ di wax ne du yoon boo bëggee dundal sa askan nga dem wéeru bitim réew boo bëggee jox ndox mu sell sa biir sa nga dem wéeru bitim réew boo bëggee faj sa askan nga dem wéeru bitim réew xam-xam sax boo ko bëggee sàkk nga dem wéeru bitim réew ñu fab administration ne ko li nga bëgg du fi am ak puissance administration dóor ci kawam tax ko inspecteur des impôts et domaines ne ko li nga bëgg du fi am fab force de défense et de sécurité dóor ci kawam ne ko li nga bëgg du am fab le pouvoir judiciaire ay toute sa puissance dóor ci kawam tey ñu ne dañuy tas partim dem ba ne sax moom ci boppam mënatul a nekk candidat ci réew mi te réew mi kenn ëppale wu ko ci réew mi kenn wu ko ci ñu ne loolu kenn dafa xamul lan la mën a jural réew mi ëllëg parce que koo xam ne fii ay millions ndaw ñoo nekk sa gannaaw am yaakaar ci yow ay millions yoo xam ne africain lañu aussi am yaakaar ci yow dayo boobu bu la ko yàlla defee ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi jiiti réew mi am na noo xam ne moom lañ la war a xoolee te moom lañ la war a traité. loolu mu tontu ñu tontu bu rafet bu dal suñu xel bu sedd suñu xol boo xam ne am nañ ci yaakaar bu baax parce que moom yàlla moo ko baaxee mu jabootee ñëpp kon nag fekk dafa jabootee ñëpp bu ñëwee fii ñun ñi ay njabootam. àggale nañ ko lool te dégg na ko alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla Habib euh, Sy euh, di euh, ki yore woon kàddu gi ci coalition Yewwi Askan Wi bi demoon fële ca Tiwaaw niki démb fala ñuy des ndax keneen ma nga fa woon di di Idrissa Seck sàkku ñaan ci xalif bi sàkku it ngir transition pacifique euh, am ci euh, réew mi gannaaw ba ñu defee élection présidentielle gi déwén euh, ba noppi Idrissa Seck ne daal li ko gën a ñor mooy ñu ñoŋal démocratie ak liberté yi ci réew mi moom i fi ne woon njiital conseil économique social ak environnemental sàkku na ci askan wi Sénégal gépp ñu joxante loxo ñu teewlu ko Idrissa Seck di ñaan suñu borom Sénégal des ci stabilité ak ci dal puisque kenn umpalewul ne àddina bi yëngu na Afrique yëngu na sous région bi ñu nekkee yëngu na mais yàlla mu ngi defal Sénégal sutura mu ngi ciy mucc ba léegi loolu nag ñaanu mag ñu baax ñi mais aussi maturité peuple sénégalais moo ñu ko may donc loolu na ñëpp góorlu pour que mu bañ a yàpp surtout en direction des échéances yi ñu jëm ñëpp def ité ci ñu traversé ko dans la tranquillité dans la sérénité et que weccoo lenge yi jóge ci ñi fi nekk actuellement ñëw ci ñeneen que loolu mën a am ci jàmm mën a am ci dal benn violence bañ ci am benn bant bañ ci dam dañoo jàpp ne nit ki bu ñëwee àddina dafa juddu dafay dee mais am na lu ko fi indi ki ko sàkk li mu ko fi indee mooy seet kan moo gën a jàmbaare ci def ay bienfait maanaam luy jariñ nit ñi ak luy jariñ askan bi loolu nag boo ci nekkee amul àpp amul sonn amul tàyyi da nga ciy nekk rek ba suñu borom ñëw ak ay dogalam incha allah. gaa yi ne nañ la dégg torop da nga annoncé sa candidature nga nga xaw a raar ci terrain bi lu xew. ah bon ah de maa ngi ci terrain bi. xëy na wax ji moo néew. kaddu Idrissa Seck njiitu parti euh, réew mi mu nga woon ca Tiwaawoon keneen ku fane woon di Amadou maam Diop njiital assemblée nationale jiite woon délégation bu takku dem waxtaan ak xalif général euh, des Tidiane euh, docteur euh, amadu Mame Diop nag daal di yeesal li nga xamante ni daal moo di engagement ci wetu njaboot gi. brigade nationale du pompier yi ñoom nee na def nañu seen bilan ci gàmmu gi ci yoon wi nag gis nañu ne am na lim nañ lu toll ci fukk ak ñetti accident am kenn ku ca ñàkk. bakkanam euh, brigade euh, sapeur pompier nag daal di euh, mobiliser éléments yu bëri ci terrain bi ngir ñu wëttu kaaraange askan wi beneen ab kërub diine Medina Baye nga xamante ni moom itam mu ngi waajal gàmmu gi niki tey ji njiit réew mi Macky Sall ma nga fa woon moom nag daal dina xibaar ne dana jox Medina Baye lu toll ci juróom benn milliard ci sunu koppar wala boog sax dana ko génne xaalis boobu ngir jàppale njàngum diine bi lay doon mu di enseignement coranique sàkku ay ñaan ci xalif bi ngir réew mi euh, nekk ci dal euh, ministre am gi ñu denk euh, kaaraange biir réew mi Antoine Félix Diome ma nga woon foofu le ca Medina Baye xam ngeen ne Medina Baye démb lañu doon amal seen cérémonie officielle moom Antoine Félix Diome nag sàkku ci ndaw ñi ñu génn wég mag ñi te tamit wormaal kilifa yi diine yi sàkku na it ay ñaan ngir jàmmi réew mi Fatou Mbow njiitum réew bi Macky Sall daal amal la nu mu koy baaxoo di ko defee bu ñuy waajal lii di gàmmu ci kërub addina yi rawatina fii ci Medina Baye bile tukkim nemmeeku na nekkul leneen lu dul sàkku si ñaan naka noonu tamit tàggatoo. may am mbégte lool lool ñëw tey. di la ziare si di la tàggatoo si. di la dënk it sama njaboot gi ji ñi ma àndal. ma Benno Bokk Yaakaar. di la sàkku ñaan it ñeel Sénégal. ndax jàmm ji gën a yaatu. suqali cité religieuse bi naka noonu tamit jàppale enseignement coranique bi ci lu toll ci juróom benn milliard suñuy koppar atum ren ji nekk ay priorité njiitu réew bi Macky sàll unité ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar bi daal di koy soxal loolu. kon damay ñaan gouvernement bi dem ñu bàyyi xel. mais dina bàyyi ci développement. gox bi. ndax goxu cosaan la goxu diine la. alxuraan. mënuñ leen considérer comme ku jàngul loolu jaaduwul moo tax ren ma décidé ne il faut que éducation nationale ak gouvernement bi ñuy financer léegi daara yi. ni ñu koy defee ci école publique. ren ñu tàmbali ci jël enveloppe bu juróom-benn milliard. pour tasaare ko si daara yi. ku ne fàtte sa bopp te xool réew mi. ànd joxante loxo. sëriñ bi ñaanal ñu si jàppale ñu si. mu nekk visite bu xalif général Mouhamadou Maye Niass di rafetlu bu baax a baax naka noonu tamit di xamle action yu mu def fii ci Sénégal la. def nañ lu baax pour ñu nekk peuple bu kawe peuple bu civilisé peuple bu xam. dañ ko ci monsieur le président sëñëw fii ci bés yu sell yi tànk rafet yi ak yéene bi nga yéene Sénégal bëggal ko ko yal na ko yàlla dëggal te yal na ko Sénégal yi dégg fonk ko ngir yàlla yéen APR ak gi ñu ko jàppale woon yépp yal na yàlla dimbale leen ngeen àgg ci loolu ci waajtaayu gàmm bu Medina Baye njiitum réew bi Macky Sall daal dinay amal tukkim nemmeeku fii ci diwaanu Saloum jóge ca Medina Baye wutali Léona Niassène naka noonu tamit kaneen ak waaw wàllum football lañ koy tàmbali ak kaaf mi nga xamante ne ni ki tey jii lay xamle bu wala boog lay siiwal réew yi nga xamante ne ñoom ñoo fas yéene organiser euh, Coupe d'Afrique des Nations 2025 ak bu 2027. Sénégal moom 2027 euh, la bëgg a organiser euh, suñu réew kon di ko xëccoo bokk na ci réew yi Maroc moom it nekk candidat organisation CAN 2025 bi ñu nangu ci Guinée. Botswana moom it déposé na candidature am ak Kenya Tanzanie Ouganda ñoom ñoo ànd kon bokk dossier Algérie moom démb nee na euh, bu génnee na kon candidature am ci wàllum organisation CAN 2025 ak 2027 officiellement fédération algérienne bu football ci communiqué nee na li mu bëgg mooy euh, gën a concentré wu kon ci nan lay def ba mën a organiser waat euh, football am 2025 kon lekkoon Algérie moo ko doon xëccoo ak Maroc Maroc nag euh, ñoom bokk nañ ci favori yi euh, beneen Nigéria ñoom it déposé nañ seen candidature réew yi organisé kon CAN 2025 ak 2027 tey lañ ko xamle ci conférence de presse euh, président bu CAF di Patrice Motsepe loolu dina doon ginnaaw kon li di comité exécutif réunion bi muy amal foofule ca Égypte ci siège bu CAF comité exécutif boobu la ñu fàttale ni Algérie bokkatu ci ginnaaw bi président bi ñu ko daanee kon ci assemblée général bi passé Euh, Libye euh, moo ko daan kon euh, ba Algérie bokkul ci comité exécutif boobu lay Barthélemy. wàllum football ba léegi championnat du monde ñi nga xamante ni ay sourds-muets lañ leen di wax Sénégal nag tey lay dana football qualification ci deuxième tour bi. seen diggante ak Thaïlande lay doon tey ci suba Thaïlande nag ñàkkoon na ñaari matcham yu njëkk yi Sénégal am dam am match nul su amee match nul kon ci match bi maanaam benn poñ dina qualifié wu. waaye sélectionneur bi li mu bëgg mooy fexe ba gagné match bi Souleymane Baro Fomba lii bu yomb ñu war a jouer ak waa Thaïlande Thaïlande mi nga xam ne moom mu ngi ci ñaari defe donc Ukraine moo ko njëkk gagné juróom benn ci dara après Argentine ah, gagné ko ci ñett ci benn donc mu lay wan ne équipe bi moom bàyyiwul boobu ba tey donc ñun nag dañoo bëgg ñun ñi xam ñu moo tax match bi dafa am solo trop si ñun ndax match la boo xam ne tey mën nañu yóbbu fu sori ci yëf yi moo tax ñu bëgg waa Sénégal ñaanal ñu rek pour euh, yàlla may ñu ndam ci match bi nga xam ne moom la ñuy jouer ak waa Thaïlande ndax lu ñuy dimbali la te dinañu yóbbu fu sori ndax euh, match la boo xam ne tey buñ ko gagné ñu taxawaay dina gën a jekk waaw ñu ngi ñaan ñëpp ñaanal ñu mu noonu kon euh, Sénégal su gagné dina qualifié ci ñaareelu euh, tour bi euh, Sénégal di daje ak équipe bu Thaïlande jamono jooju Ukraine Argentine Ukraine moom moo jiitu ci poule boobu am 4 points ëppale goal différence équipe bu Sénégal bi am tamit ñeenti points Barthélemy. waaw ñu niki tey jii la ñuy wéyal juróom-ñaareelu journée bu Liga espagnole. 17h Real Madrid mooy daje ak Las Palmas Real nag Bart su gagné day jàll ci kanam FC Barcelone mi jiitu jamono yi ndax FC Barcelone dafa def match nul. Mhm. Euh, deux buts partout ñu mën ko ñaari yoon mu daal di ñëwaat euh, ci euh, match bi. FC Séville moo daan daan yu yaa sax Almeria juróomi bal ci benn Almeria fa la Dion Lopy nekk nekk international sénégalais nekkoon titulaire ci match boobule. ca France tëj nañ dem ba sixième journée bi Lille Reims moo ko fekki daan ko ñaari bal ci benn. ca Italie euh, sixième journée bi kon euh, doon démb Juventus moo daan Lecce euh, benn bal ci dara ci Angleterre ñuy wéyal kon lii di seizième de finale coupe de la ligue bokk na ci match yoona fës tey 19h Newcastle Manchester City Idrissa Gana Gueye Everton ñooy fekk Aston Villa à 18h45 waxtu woowule kii di Nicolas Jackson ak Chelsea di dalal Brighton Liverpool Leicester lay dajel match boobu kon 18h45 lay doon ca Europe ba tey ca Olympique de Marseille. Gennaro Gattuso euh, moom technicien italien bi lañu jàpp ni kon euh, mooy dooni euh, entraîneur bi ndax Marseille booba léegi kon amulul entraîneur waaye média yu bëri ne kon am na waxtaan yu yaayu am diggante Longoria di président bu Marseille ak Gennaro Gattuso ngir mu ñëw kon toog ci banc bu Olympique de Marseille Gattuso nag ñi ko gis muy football. waaw <laughs> style waaw dóor daal rek la doon def. dóor daal <laughs> ci at ci nawetaan ku ku ku mel noonu loolu rek ñun tuddee ko waaw su mooy rek mooy toog ci baamu Marseille <laughs> euh, nekk entraîneur Ismaïla saar ak euh, kii di Iliman Ndiaye ak euh, ñu wax ci wàllum athlétisme Youssouf mm. entraîneur bi nag mu ngi sàkku ci athlètes yi ñuy ñuy boole sport bi ak njàng waaw ndax jàng bi lu am solo la ci ab jàngat boo xam ne sax amal nañ ko nee nañ kon ci athlètes yi ñi xamante ñooy yëngu ci wàllum sport kese ñi ci am réussite ci téeméer boo jël ñaari fukk kese la 20 pour cent moo tax kon moom sélectionneur national bi di Nalo Fall eh, di sàkku ci ndaw ñi ñu boole sport bi ak jàng bi ñu dem ca Rufisque fekk fa Abdou Diouf Diagne. fi ci Sénégal ndaw ñu bëri nag di yëngu ci wàllu tàggat yaram centre de formation yi gën a bëri wante nag du ñëpp si ñoom ñoo mën a tekki nag ci sport boobu nga xam ne moom la ñuy def téeméer boo jël ñaar fukk yi képp ñoom ñoo siy tekki bu ñu sukkandikoo ci kii nga xam ne moo jiite équipe nationale bu athlétisme. sportif carrière am mën na xëy tànk bi damm carrière am yem fa mën na xëy am beneen contrainte beneen problème familial carrière yem fa te suñu études yi ñu def daf ñu wan ne sportif yu bëri dañuy que Aïta Ndiaye bokk na si ñi koy doxal. da nga war a boole ñaar yëpp boo defee sport rek bàyyi sa jàng mën na nekk euh, ndëgg sërëx boo xam ne keroog bañ lay fay ay million millions yoo mën na see nax wala doo ko mën a gérer boo fa bàyyi sport bi tamit mën nga fa bàyyi opportunité comme xale yi dañoo bëgg sport looloo tax ñu ne war na mën a nekk étude droit la sport droit la. ngir nag daal di fexe ba ñi nga xam nag ñoom ñooy athlètes yi bu ñu retraité du ñu am benn jafe-jafe état bu Sénégal nag ñu sàkku ñoom ngir mu daal leen di gën a jàppale ngir nag bu ñu paree seen carrière bañ loru benn yoon il Maurice rek maa ngi woon récemment ak ñoom boo xësee mës a gagné médaille pour seen dëkk rek da am une pension viagère li sa giiru dund da am benn salaire bu lay fay ndax médaille bi nga gagné pour seen dëkk te bu weesoo loolu j'espère que bu ñu koy bindaat dañu fàtte lool Rufisque Olympique Sport nag doon sargal ndongoom yi nga xam nag ñoom ñoo gën a ràññeeku ci examen yi nga xam ne nag dañu koy amal ci biir réew mi RFM Rufisque Abdou Diouf Thiaye waxtaanee mi mu doon conseil bu am solo. baax na waaye jàng it il euh, nga jàng. boole ñaar gën. waaw parce que mun nga ay waaye nga bañ a réussir ci sport. Mm. wala nga am gaañu gaañu bu la empêcher nga terminer donc euh, soo jàngee da dam dem bàyyi sport bi dam def leneen. absolument muy lu am solo sport étudier Youssouf Bodian jërëjëf. RFM. culture xibaari aada yi ci rythme gàmmu gi dañ ciy ànd ak Soda Thiam. dal leen ak a law.